difu ay kilifa yu mag a mag ci am ma ci feggoo nag sama xarit sama rak sama doomu ndey Alaaji Abdoulaye Guèye maa leen nuyu baax a baax a ไลักเพศเลสไลค์ไกลไกไปไปไปไลไปลดเป็นแทนแทนยังไงโอมาจุมาจุมาทำมาทำมาเดี๋ยวก็เ ki waxtaan bi dañuy dugg léegi léegi nii comme ni ko waxee ñëwee ci gannaaw ci rési ñëpp ñëpp équipe équipe appel ñëpp ñëw pour ci grand rendez-vous bi nga xam ne tey dañ leen di présenté woon fii nii tey comme dañ waxee tey ànd tey wax nañ dafa kër bu sa waa ñi nga xam ne waa CRC yi ak Nour comme Nour bi sànq sànq ajabtu dem du mag tey tey am tey am tey ak ki nga xam ne mooy aar suuf ci waa xii nii tey dañ ñëw ak tagoo sañ séeréer tey waxtaan bi yàlla yàlla am nit ki noonu rek dañuy jëwriñ rek directement bàyyi ko mu nuyoo moom Fall maa ngi nuyu baax a baax dinaa ci gën a gën a. asalaamaaleykum wa rahmatulah. xëy na dinañ la gën a gën a gën a. ak yaakaar si moom rek di moom directeur bi El Hadj Ndiaye ñu koy nuyu. man mi ngi sant rajo. waaye di nuyu saxal plateau bi yëpp. Eh, dëkk ñoo saxal plateau plateau tey. waaye di di kontaan lool ci sama naataango yi ma nekkal nekkal eh, maram bu maram bu cabinet ni ko waxee ak président Omar Gueye di président collectif Xinin Tago ak Sanki Séeréer ñun ñëpp ñu bokk dëkk commune bu Kër Moussa bokk dëkk Kër Moussa bokk di am ci loolu nekk loo xam ne nii moom mooy développement Kër Moussa rek waaye ànd kook cabinet CRC si mu ngi ciy jàppale di nuyu di ko nuyu di nuyu ñëpp nag di nuyu képp ku ñuy dégg nag tey wax ni ñu ngi ñaan yàlla eh, jotaay bi yàlla bu ñu fi wax lu ñu fi lu ñuy xeebe yàlla bu ñu fi wax lu jaarul yàlla bu ñu fi wax lu waxul. dan euh, and ko ci jàmm li nga baax incha allah ni ki aussi euh, wax nañ ne ko léegi fi nga madame Ndour jiite cabinet bu am solo euh, madame Ndour ñi am bu baax a baax di ci grand rendez-vous ci bu Kër Moussa waaw Fadi moom maa ngi leen di nuyu mhm. leen di leen sant aussi ci bi di sant aussi toute la presse locale mhm. di gërëm aussi sama collectif Moussa

voilà ci ci lan mooy suñu rôle ak lan mooy suñu euh, taxawu concernant incha allah population incha dana ci ñëwale ci yaatal gi nuyu ko munti nuyu waa cabinet am yëpp nekk noonu tamit dañu nuyu tamit waa aar suñu suuf Omar Gueye di ko la nuyu baax a baax da daal ci waxtaan bi tamit aouzu billahi samiil alim min aseytaani rajim bismillahi rahmaani rahim allahuma yassir li sadri wahlul uqdatam min lisaani yafqahu qawli Euh, ñu ngi lay ñu ngi nuyoo ñu fi teew yëpp di delluwaat tamit aussi di la fay nuyoo di kontaan bu baax a baax ci daje bi ñu am tey jii nii ci euh, émission bu ama am solo bi nga xam ne vraiment ñu ngi koy taxawal tey jii te li ñu tax a jóg nekkul dara lu dul intérêt askan bi euh, taxawaay boobu la ñu am di nuyoo madame Ndour bi nga xam ne moom mooy suñu expert foncier bi ak Modou Fall ma la di président collectif ànd defar Kër Moussa. waaw ñu ngi nuyu ñi fi teew yëpp waa plateau bi di ñaan yàlla yàlla yombalal ñu émission bi ba li ñu bëgg génnee ñu mën ko génnee mu nekk njëriñu gox bi yëpp. jërëjëf nga wax nit ñi euh, titre foncier euh, bi nga xam ne tey moom la ñu war tey bala ñu ci présentation kenn ku ne ci ñoom. Euh, jërëjëf comme ni ñu ko waxee rek seen présentation yi am na solo ñu nuyu leen bu baax a baax ci suñu nuyoo rek képp koo xam ne yéen seen làmmiñ àgg na ci ñoom te amaana ñun suñu bés tudd ko su ko defee rek tey dañuy waxtaan ci li nga xam ne mooy sécurité foncière xam nga sécurité tëb yoo xam ne bu kenn laal ci la bokk mm-hmm. waaye jaar yoon aussi ci la bokk donc loolu moo war waral tey teewaayu collectif yi ak li nga xam ne mooy teewaayu waa CR sëy jërëjëf euh, comme thème bi euh, leer na ci moom euh, Abdoulaye Gueye ni mu ko ëndee kon damay bàyyi directement rek ki nga xam ne mooy président Modou moom mu présenté bu wax moom mooy kan tuuti waxtu tuuti li nga xam ne mooy Anta Ba Kër Moussa li ko ñu mën a xam après li ñu waxtaan lu mu doon waa kay ñu ñëwaat rek di di di yaatal rek ba léegi di wax ni nuyu nan suñu mbokk yi mbàyyi gi na yëpp Kër Moussa yëpp di def ci seede village comme daanaka lu ñuy def dañ koy ànd ak moom andak kolektif ko ànd ak collectif ànd defar Kër Moussa yëpp waaw di wax ni kii wax ni Modou Fall la tudd dëkk Kër Moussa juddoo Kër Moussa euh, bokk ci ndaw yoo xam te ne xañ na euh, juddoo Kër Moussa defal len ñu dem ba xàmmee ba ko delloo Kër Moussa li defal ñu delloo mu delloo ko Modou Fall commune bu Kër musa mi fi bëgg euh, man waran ñu koy bëgg xam xañ ñu ko xamul wala bokk ñu ko xamul ñu ngi koy dégg ndax moo Modou Fall mooy président collectif ànd defar Kër Moussa waaye du Fall mooy président mutuelle de santé de la commune de Kër Moussa ci 36 village yëpp moo Modou Fall dafa jiite yeneen kuréel yoo xam ne ñu ngi Kër Moussa yoo xam ne xañ na xañul ci plateau pour ñu koy tudd loolu moom moo tax ma yaakaar ne ñàkkul ne euh, Kër Moussa bari na ñu xam mbaa dégg nañu. ànd defar Kër Moussa eh, lan moo ko lan mooy ànd defar Kër Moussa. ku koy da nga yaakaar ne eh, litige foncier rek moom moo fekk loolu benn la ca c'est que foncier moom moo toll foo xam ni li wala fi yarawu màgget la loolu moom moo ci ne waaye du foncier rek lépp luy développement Kër Moussa mi ci. lépp luy développement bu koy koy bu da bëgg ñu yaatal ko nañ andi ay ay pàcc yu bëri yu waaw. très bien kon loolu mën nañu ko doyloo ci mën nañu ko doyloo ci wàllu présentation bi. su ko defee mu ñëw directement ci euh, madame Goudou moom tamit mu présenté wu présenté aussi cabinet bi nga xam ni moom la yore euh, nit ñi di ko wóolu ko jox ay ay euh, jafe-jafe mu koy taxaw ndax mu ngi ñëwaat ci présentation ci yow lu gàtt rek ak CRC bi mooy àggu ci waaw CRC yi de benn cabinet la boo xam ne nii ay kilifa ñoo ci nekk mm-hmm. doyloo ma nag jiital ma. Mm-hmm.

waaw bokkul ak un privé bi ñëw né dama bëgg nga ñu fay la nga ni mais lii di collectif yi lii di seen lotissement administratif yi ak titre foncier tamit dañ leen ciy dem parce que c'est du carrément social waaw mais ci lépp loo xam ne liñ ci mën ñu ngi ko ciy dox te fa fépp foo xam ne ñu ngi fay jaar tamit suñu borom mu monsieur may ndam te incha allahu rab bu neexee yàlla dinañ ko wane ci biir kër bu sax consortium de réalisation commerciale et d'investissement Depuis uh, plus de très bien kon dinañ directement ak Omar moom tamit mu mën a présenter boppam waaye wax tamit tuuti seen kuréel fi ñoom la moo leen tax a jóg ak kenn juddu ak loo xam jotagul nañ koo taxawatu ci ñoom. waaw dellu war nuyoo war rek wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu maa ngi tudd Omar Gueye man maay président collectif xeneen uh, ñett zeng sanc séeréer eh, tago ànd aar suñu suuf dafa juddu ci jafe-jafe yi nga xam ne amoon nañ ko ci suñu ci suufu Kër Moussa bi ci lotissement yoo xamante ne bii am na ay jafe-jafe yu bëree bëri euh, collectif bi ci biir loolu la juddu li nga xamante ne bii daal moom mooy jafe-jafe askan bi ci wàllu suuf moom moo tax collectif bi juddu mu ànd ceeg partenaires yoo xamante ni bii vraiment ñoom ñoo ngi taxaw di ñu jàppale ci liggéey bi mel ne suñu cabinet foncier bi mais collectif bi. Euh, taxawaay bi mu am ak avancement yi mu am euh, vraiment ñu bëri gis nañ ci seen bopp amal na njëriñ askan bi ci côté yu bëree bëri ndax jafe-jafe bi nga xamante ni moom moo amoon ci foncier bi ci suñu kaw euh, lotissement yi nga xam ne defoon nañ ko mooy alignement jékki-jékki ñëwaat di ko defaraat ñu ne dañoo am autorisation lotissement administratif jékki-jékki ñi nga xam ne ñoom ñoo yore ñoo fi nekkal état ñuy wàllu mairie di ko defaraat ci façon boo xam ne amuñu déggantewuñu ak askan bi mu doonoon jafe-jafe boo xamante ne bi posé na problème bu mag a mag mag ci gox bi moo tax collectif bi jóg taxaw ànd ak askan bi di xeex loolu ci biir xeex boobu nag dem nañ ci ba liggéey bi ñoom commencé woon nañ ko waaye ñu am taxawaay ak waa askan bi ba ñu arrêté liggéey bi bi ñu arrêté liggéey bi nag ñu dem ci wàllu négociation parce que jafe-jafe yi moom ku nekk yaakaar naa ci gox bi dégg dégg na ko ndax amoon na plateau bi ñu fi njëkkoon am euh, ci jafe-jafe foncier boobu moo taxoon ñu ñëwoon fii defoon ci benn émission ñu nag euh, ñoom Abdoulaye Diouf coordinateur waaw su ko defee euh, collectif bi nag taxawaay boobu moom la am ba ñu ci commencé am vraiment loo xam ne askan bi mu ngi ciy gis seen bopp ndax jafe-jafe yëpp arrêté nañ ko ba ñu teg lépp ci table bi def ay protocole d' accord seen collectif bi kañ tàmbali. waaw ci jafe-jafe boobu rek la tàmbali. presque moo ngi war a mot ñetti at ak léegi. Mm-hmm. waaw. waaw 2021 la commencé. xam nga mooy coow lu bari mooy coow lu bari boobu nga xam ne daanaka Sénégal ku nekk gis na ko ak bitim bitim réew sax ku nekk fu nekk ñu ñuy woo. Mm-hmm. waaw léegi nag euh, nekkoon lu yombul woon nag nekkoon combat bu metti metti suñu jafe-jafe nekkoon suñu jafe-jafe ak mairie ak euh, ñi nga xam ne ñoom ñoo yore euh, commission domaniale. ñoom ñu jëloon seen engagement ñun tamit dëkk bi ak askan bi yëpp boolandoo am détermination. def leen fas d'accord kon dañu ñëwaat ci Ablaye ci dama dama bëggoon ñëwaat juste rek par rapport ak euh, collectif yi ci jëmmi boppam. Mhm. parce que ni ma déggee ni ngeen ko intitulé dafa xaw a yaatu. Mhm. boo waxee sànca xëy na tàggu et cetera. Mhm. est-ce que collectif bi couche yi nga xam ne ñoo sekk. Mm-hmm. village yooyu yëpp est-ce que intégré ci intégré ngeen ci ci biir collectif bi. bien sûr euh, boo xoolee euh, waa xeneen moom la ñuy moom la ñuy tuddee kinif. ci suñu boor bi waaw boo nee kinif dañuy xam kinif. Mm-hmm. moom mooy xeneen bu mag bi ngay njëkk jot nii. te ñoom Ablaye Diouf dëkk ci. Ablaye Diouf moom mooy coordinateur bi. waaw mooy coordinateur bi. moo yore kaddu waa xeneen. Euh, waaw moo yore. waa kinif bokk waaw kinif voilà moo yore kaddu waa kinif. soo demee tagu am na ñu mel ne ñoom bàcc seen ñoom ñëpp ñoo ngi ci bureau bi mm. parce que bureau bi dafa yaatu boo demee kër Bandiaye ñi mel ne euh, Ablay Pouy moom moo ngi ci biir bureau bi mm. boo demee fële ñoom euh, Oustaz Mohamed Seck ñoom euh, Ibrahima Faye ñoom Daouda Faye ñoom ñëpp ñoo ngi bokk ci bi maanaam lu yaatu la parce que bi dafa am nu mu tëddee suuf bi dafa jógee Tugoni mu laal sanc séeréer mu ñëw xinin mm. moo tax ñun ñëpp ñun ñoo ko bokk mu nekk lu yaatu waaw benn bon bo xolé bon mën nañu wax né xenin xenin mom mo ci ëppale. parce que Tugoni moy partie Kinif. waaw Kinif waaw bo xolé Tugoni dafa am 80 hectares. Hmm. bo démé xenin mais lolu dëkk pass bi mom mo dess mais bo démé xenin dañuy def 136 hectares. Hmm. bo démé ñetti zinga ñu def stationnement ñu def 36 hectares. da hmm. non la tédé manam affaire yi dafa dugaloon te mu jaxasoo. mais nak buñu porter combat bi. dañ ci boole village yooyu yëpp dañ ko dañ leen boole léegi ñu ànd nekk benn doole am benn doole nekk benn bloc daal ci ni ma ko mën a expliquer. alors ñi nga xam ne ñooy peut-être majoritaire ci wàllu suuf soosu rek muy waa kilif comme ni nga ko waxee. Mhm. for nañ ci wéyu benn bi ko sampee ak léegi. est-ce que dem ngeen ci ki nga xam ne mooy seen kilifa muy seen chef de village wala structure bi nga xam ne teg nañ ko fa muy CVD bi pour ngeen intégrer wax ñoom ci li nga xam ne mooy seen principe ak li a jóg. Mhm. première jéego yu ñu njëkk a def bi ñu gisee affaire bi gars yi song ko te bu ñu ñëwee ñu gëstu ci askan bi amul déggoo maanaam kenn informé wu leen. ñun dañu def benn délégation bu ndaw léegi ñu dem seeti directement chef de village. bu ñu demee chef de village ñetti zeng ñu laaj ko ndax mbir mi yoonu ndax dégg nga ko wala lan la la ci maire wax. Mm. mu ne mbir bi daal vraiment kumpu la ci man dégg-dégg laa ci am. ci ci ci ci moment boobu la ñu woo maire directement ñu ne ko dañ laa soxle daar daar. waaw te bu ñuy dem dañuy dinañu ànd ak chef du village ñetti seng ñu ànd foofu léegi ci lañu effort boobu la ñu def waaw moo la boot yéen ñëpp daal waaw mais après ci biir jéego yi def nañu déplacement ñu dem seet yi euh, suñu pap Roon Diouf boo xeneen dem nañ ba foofu ñu toog ak moom waxtaan ak moom waaye Baye Arona Diouf laaj ko lan mooy xalaatam ci mbir bi ñu waxtaan ci ak moom to donc moment yooyu daal ñuy def benn nañu ay déplacement yu bari waaw ci waa askan bi. dañ ñëwaat ci kii euh, ci euh, ci euh, aar suñu suuf. Mhm. boo xëy na kon Ablaye dañuy bàyyi directement mhm. tey ay cas lañu am. di fàttali ne ñu am nag grand rendez-vous mag a mag. ma bàyyi Ablaye Gueye mu ñëw ci premier tomb bi nga xam ne. moom lay si def ak suñu mbokk Modou Fall. Mhm. li xale yi wax rek ñi topp kaay. <laughs> ca bisimilah. <laughs> voilà c'est que Kër Moussa moom peut-être kaay dafa dafa bëri. wax yi bëri wax yi pëcc moo tax rek grand rendez-vous. Euh, rendez-vous la entre mm. kii wax ak mm. population bi parce que ñun dinañ la laaj mm. mais yow miy wax moom jàppal ne du suñu nopp rek lay déglu 36 village yi yëpp dañuy bàyyi seen xel ci Pulel TV ñu déglu kii wax ana la lay wax ana lan moo ci part de vérité ana lan mooy ci li nga xam ne mooy taxawaayam bu bu reyal su ko defee ci loolu rek gis ñu coow loo xam ne yàgg na am ci dossier c cinq r mu dellu ci dossier filifili defe naa ne bu ñu juddoo ba fili ñu ngi dégg baatu filifili yen mhm. ci suñu commune mhm. yéen waa ànd euh, defar Kër Moussa mhm. ñu wa leen ci combat boobule bu ñu delluwaatee ci 55 R c'est-à-dire Rufisque dafa dellu ci benn problème boo xam ne njabootu filifili la ak njabootu wa Kër Moussa Kër Moussa commune bokk suñu mënee dippee noonu suñu mënee xaw a laaj bi tey jii ci waa ànd defar Kër Moussa gis nañ leen ci génn yu bëri ngeen dem ci euh, média locaux yi wala li nga xam ne mooy presse nationale bi mm-hmm. dénoncer li nga xam ne mooy seen coow entre yéen ak waa li nga xam ne mooy C55R mm-hmm. muy Filifili problème boobu tey lan mooy yax bi mm-hmm. dégg-dégg ak fan ngeen ci toll ci wàllu combat Modou Fall jërëjëf nuyuwaat na leen yéen ñëpp képp ku ñuy dégg xanaa ma ma ma présenté waat Kër rek bala bala may dugg ci kii bi Kër Moussa euh, département Thiès la bokk. bokk ci région de Thiès département Thiès. waaye arrondissement Kër Moussa li yor d'arrondissement la. di di commune en même temps commune bu Kër Moussa moo polarisé euh, Kër Moussa Kayar Jandeer Fandine. Kër Moussa mooy commune boo xam ne mooy premier commune bi gën bi njëkk frontière ak Dakar euh, Kër Moussa. am na euh, trois communes yoo xam te ni dafa frontière ak ñoom ci Dakar Sébikotane Diamniadio Bambilor Kër Moussa bu ma ko doon leeral Kër Moussa daal noonu laa ko mën a waxee euh, problème bi moom bu la waxee euh, dëgg-dëgg origine bi day kawee ba ba ëpp ndax lay wax 1889 loolu moom moo kon kon kon boo nee <coughs> moom mooy foofu foofu la maanaam histoire bi daanaka loolu mooy origine bi. loolu nag moo ñu topp ba tey jii ñu ngi ci 2024 euh, boo déggee boo déggee 1800 dégg dégg mille 1000 1900 dégg ki mille mille mille 1000 cent 1960. Mhm. li nekk ci ginnaawam avant mille 1960 ba 59 amuñu indépendance 60 lan am indépendance euh, li xewoon Sénégal nag avant année 1800 xam ngeen ko. Mhm. def naa li fi li fi jaar bari na. à traite négrière kenn kenn dootu ko waxati commerce triangulaire kenn waxatu ko kon yëf yi yu mën ne ak njaam yooyu yàgg na fi waaw njaam googu nag mooñ topp ba léegi waaw filifili moom daanaka ab jaamam lan rek ndax itam naar boo xamante ni euh, euh, du sénégalais dikk fekk fi sunuy maam ñu dëkkee suuf si mu dikk fekk suuf si nekk fi tey ji mu ñëw ba chaque jour at mu jot ñu tudd filifili di ko tudd loolu tamit euh, ñu ngi koy ñu ngi koy jéebaane fu ne Euh, li ma ci dolli moom mooy euh, boo waxee léegi danga nga ni seize cinquante cinq R di dégg seize cinquante cinq R mooy titre foncier boo xam te ni département Rufisque la concerné ñun dèjà yaa ngi ni Kër Moussa ni Thiès ñun commune bu Thiès suñ commune Thiès la bokk maanaam région bu Thiès la bokk kon yaakaar naa mënoon na bañ a am ak moom jafe-jafe ndax boo ndax ndax ndax Kër Moussa bi euh, ginnaaw loolu jafe-jafe bi du Kër Moussa rek. waaye sébukutaat sax mën naa ne moom mooy fond moom mooy fondamentalu jafe-jafe bi. Euh, loolu rek boo bu dee kiy dégg bu dee ki may dégg war na xam ne kon euh, problème bu rëy a rëy am na euh, li ci tegu nag moom mooy problème boobu tey jii lu ko jeexal la di wër ndax bu jeex ji. moom mooy ñu jur moo ñu jural jàmm. moom moo ko jural jàmm. lu ko jeexal mooy lan nga ci bëgg wax. parce que bu ñu nee CES 55 guerre. ci biir foncier la. Mhm. peut-être madame dina si dina si mais ki dem ba ñu jàpp ni moom moom. Mhm. ñu ne moo am titre foncier. Mhm. kayit bu ko xam ne. peut-être amul lu kawe lu war lu nit mën a teg pour wane ne fii maa ko moom ni moom. li koy jeexal yow lan nga jàpp est-ce que titre foncier boobu. da nga jàpp ni. jaaduwut mhm. wala da nga jàpp ni jaarul fu mu waree jaar mhm. wala da nga jàpp ni dañ ko war a nangu rek tout simplement ndax yéen ëpp doole jërëjëf loolu loolu mooy mooy gën a leeral waxtaan wi euh, titre foncier bi danoo jàpp ne dañ ko contesté ci la ci ci ci côté yëpp ni ni amul waaw waaw amul amul li tax ñu ne amul dinañ ci yaatal lu bëree bëree bëree bëree bëri li tax ñu ne amul mooy euh, titre foncier bu buñ koy wax dafa war a am nu muy juddoo def naa léegi euh, yéen seen seen seen média bi déplacé woon na barki démb dem dem Kër Moussa ñu leen di xamal ne leen ab dégg rek fu mu nekk kenn waru ko sëkk di fa di fa di fa jéem a aménager leen rawatina nit ñi bokk dégg waaw boo dikkee fekk nit ñi dëkk kon nan nga mën a amee titre foncier titre foncier boo koy am dafa am norme yooyu jaar da ngay am acte de donation. wala nga am acte acte de euh, de de cession de peine loolu mooy fondement kayit soo ko amee nga soog a wut délibération boo tee délibération nga wut bàyyi boo te bàyyi nga soog am titre foncier mm-hmm. léegi loolu moom moom ñi ngi sàkk yéen ngeen woo fili fili ngeen invité ko mu wan leen titre foncier am mu wan ko Sénégalais ndax Sénégalais danoo soxlaa gis titre foncier fili fili ndax li tax mm-hmm. mooy euh, ñun li tax ñu ne titre foncier amul benn. yakana naa léegi bi ma toogee war naa leen ñaari ñaari différence su euh, état droit réel yoo xam te ni. gis ngeen ko benn bu ne bokkul ak moroomam superficie. 483 mm-hmm. hectares 56 ar et euh, je pense. Euh, jërëjëf 483 hectares yooyu. 400 waaye. danoon jàpp ni l'emprise du voie ferrée. Mm-hmm. jàpp ko sax raay bi mm-hmm. ba ci 50. périmètre raay def naa bon li li tax li titre foncier di am ay différence loolu moom mooy te loolu mooy origine bi te loolu c'est le titre foncier d'état loolu titre foncier état la titre te état mooy kan mooy ñun mooy ki sama kan ak ki sama ginnaaw waaw moom mooy mbedd mooy mooy mooy mooy mooy ki yaakaar na bokk ci loolu mooy état état mooy ñun voilà léegi kooku nan lañ ko mën bu dee titre foncier état la ñun ñun ci état la bokk nan lañ koy jëlee benn benn étranger jox ko ko di bàyyi di di bàyyi ñi dëkk dëkk bi loolu loolu dafa naa loolu xel nungoo ko. ban anam ngeen xeexee loolu ci wàllu droit. Eh, bari na ba léegi ñu ngi ci ndax am na benn doyen bu nuy wax Baye Diop ñoo ànd sax dafa waxoon ni moom du yëkkati loxoom baa muy yàq baa muy kii te fekk da te fekk daanuñu ko ci ci ci droit ba noppi loolu moo waral tey ñu engagé wu ci cabinet bi pour que. loolu maanaam loolu dañu ko doon tuumaal yaakaar ni dañuy kii nii fekk def nañ lu ne mais amuñu woon lu ko feeñal jël nañ avocat def nañ parce que euh, ci d'abord li ngay wax noonu euh, li tax ma ni amul ba léegi euh, amoon nañ avocat bu boo xam ni demandé woon na fili fili pour mu pour mu wan ko titre foncier mu bi mu ko laajee loolu fili fili nii ko nan ko demoon bu tëngeej fili fili laaj ko ne ko nan ko nan ko may fi ak 3 mois mu andi ko avocat bu may ko 6 mois ba léegi wanuñu ko. boobu danoo tolloon ci nañu ko wan xam nga waxtuñu ni mu ko amee wala nu mu ko kiiyee waaye loolu sax kiyatu sonn nañ ci kii bi léegi nañu wan bu ñu wanee ñu bàyyi waaye wanuñu ba léegi dafa am mais boo amee yaa moom maa ko moom mi ngi nii wan ñu boo ñu wanee ñu bàyyi loolu li ko li ko tekki moom mooy bi bi moment boobu bi mu demee ba tàng ba mag ji 92 eh, ba ba ba ba yegg si ay ay 2000 2004 2005 mooy moment bi yu jëkk yi suñ mag ñi paay bi ñu ci nekkee noonu sama maam yooyu ak sama baay ba ba alaaji Abdou ñëw fi yàlla ñu ko yàlla fayal ban waxoon ak Abdou Diouf ban ban yóbbu ko bët bi mu del siwaatee daa wax ni moom daa ñëw pour moom moomul waaye daa bëgg daa bëgg ñu jaay ko loolu sax moo gën a indiwaat problème bi. loolu ban la woon. Eh, jërëjëf loolu de maa la wax 2004 2005 ba 2011. yaa ngi dégg mi ngi ni dossier yi comme li may faral di wax rek fii boo xoolee réunion réconciliation la wax mi ngi ne boo seetee ni wala mu waxante mag ñi mi ngi nii lii boo woon xoolee ñii ñoom ñoo ñoo ñu fa nekkaloon kii moom ma doon chef de village à l'époque Alassane Ndoye Mounir Fili Fili moo ngi nii Mamadou Diagne notable woon Kër Moussa Mor Gueye moom actuellement mooy chef de village bi kii xam ngeen ko Samba Diagne moo doonoon euh, moo doonoon président à la. lan la tënk ak mag ñi ci jërëjëf li mu tënk moom mooy ngeen jaay ma su ngeen ma jaayee ma jënd. bi nu waxtaanee ñëw kër chef de village Bayal Sandoy yàlla na yàlla yërëm ko euh, mu ñëw waxtaan ak ñoom waxtaan ak mag yi Sébikotane pour pour pour ñu jaay ko. bi mu dikkee da nga ko wax ne ko koo xamante ne bëgg nga bëgg na bëgg na laa jaay. boo waxanteeg boo waxanteeg moom bu ngeen juboo eh, bu ngeen nga jël nga mu jox la nga jox leen mais ku bëggul a jaay nga bàyyi ko moom loolu moom ci amee ñaari kaa ñett daa profité ci occasion boobu maanaam ku bëgg jaay jaay ku bëggul jaay jaay par force par force bi nu mu demee eh, su dikkee fekk sa tool mu mu mu fa machine nga ragal bu yow mu dugal sa machine sax yaa tane yow moom mën naa mu xàmmee la. mais mais keneen keneen ci sa ginnaaw da koy wër bu ko wëree bàyyi tool yi mu bàyyi ci biir bu bu bu jëlee bi jël bi ci biir dootoo ñi may traversé euh, surface am di jaar ci biir bu boon xoolee li may wax ni bu ngeen bëggee ci am résultat bu ngeen déplacé ak seen camarade bu ngeen demee ba Ndoyeen Raay Ndoyeen Raay bu ngeen demee yoon bi jugoon biir Ndoyeen Raay dugg ci biir Filifi ma ngi ko fatt ak mur de clôture jërëjëf ah, waaw noonu noonu nag la jëlee tool yi am na ñoo xamante ni ba fi may wax jotu la waxante ak ñoom am na ñoo xam ne dafa xotal leen ba ñëw ñoo dugg dugat seen tool mu jël ko noonu am na ci ñoo xam te ne jot la jaayante ak ñoom. d'accord loolu yëpp mu boole mu mu boole leen. yooyu yëpp ay problème la. waaw maintenant la fekk ngeen collaborer ak li nga xam ne mooy cabine bi maanaam ban mission ngeen chargé li nga xam ne mooy cabine bi. jërëjëf loolu moom dañ ciy sawar lool waaw ñu ngi koy jaaf jaajëfalaat lool moom madame madame Ndour euh, cabinet bi bi ñu ak moom ba léegi defe naa moo tax lu gën bari fu ñu fay dégg hmm. maanaam dañoo jot lu jotul woon yóbbu fu ñu xamul woon. loolu yàlla dogal ndax itam en réalité ñun fii lan Kër Moussa Kër musa euh, commune la boo xam te ne dafa am maire yi maire nag moom mooy ki dénk suuf si moom lañ dénk suñu lépp alam gi yëpp euh, def nañ ay ay ay ay kii yu bëree bëri ci foofu laa profité sax waxaale li bi demee seeti Madame duur pour mu jàppale ñu ci xeex bi loolu de juguñu rek dem fa de danoo gis mu def ay effort def ay preuve dugaar ku nga xam ne méttoon na trop mu mu mu def ay dégg nga expliqué na ci lu bëri mm-hmm. loolu moo tax ñun man madame Ndour télé laa ko jëkk a gisee ma gis ni muy taxawoo dugaar défendre ko noonu mm-hmm. ci laa jëkk a jëlee numéro te boobu gisuma ko léegi loolu bi mu amee ba nu ba nu ba nu ak moom bi ñu def ñoo wax loolu tam bëggoon loolu lu ma ñor la bëggoon naa Sénégal yëpp dégg ko mm-hmm. danoo dem wax ko ne ko danoo bëggoon a ànd ak yow ci xeex bi nga jàppale ñu ci. mu wax ñu nan lañ ko ci jàppale ñu wax ak moom ba noppi mu ne nañ nañ ñëw ñu daje ñu daje ñu waxtaan bi mu dëkkee daf ñoo wax ni moom day bëgg lu muy xeex mu ne ko jaar ci yoon lu ñàkk maanaam li muy li muy xeex ni jaarlu ci yoon comme jaarlu ci yoon te doo a jaar ci yoon dañuy jëkk ci jaar ci yoon yi ñun ko dañuy jaar ci yoon mu ne dañuy dem ba ca maire bi fi nekkal commune bi ñu waxtaan ak moom mu jiitu ñu topp ci boobu tam bi ma waxee loolu naan ko ah ñun maire bu doon loolu donc duñ fi egsi ndax waxtaan nan waxtaan def nan kii kii ak yu mel noonu mu ne déet loolu yéen la woon waaye bi cabinet ngeen wax kon cabinet tamit buy def day def lu tegu ci yoon bu fekkee mën ngeen a ñëw ñu ànd ñu dem ca maire mu jiitu ñu topp ci moom daf daf bëggul di xeex man ni day xeex maire bi ak yu mel noonu daal ne du ma leen nëbbu am naa moom ay relation waaye nag loolu leneen la loolu mën ak moom la waaye yéen ak moom it bu fekkente ne ba ngeen ma jàpp ci dan dem mu daggee ba ci maire bi bu ci ñu dem bureau monsieur le maire moom sax wax na ni dem dafa gis ni li tax mu seetaanoon ñun dañoo xawoon a man ni ku ku ku dundul waxtaan ak moom. dañu waaw man ni koy opposé ak yu mel noonu. Eh, waaye ci la ko maram doon ni ko loolu nag jeex na ndax loolu li ñu fi indi tey mooy jeexal loolu pour nga jiitu ñu topp ci waaye ba fi may waxee yow nii ba mu jiitu ñu topp ci ba léegi wax dëgg yàlla gisuñu ko. gisuñu ko déedéet gisuñu ko. ko ci combat bi. Ah, est booleel moo tax. Eh, ki ñu booleel kooku cabinet la yor. moom mairie la yor. moom en ngi man ne demee avant cabinet bi ñëw. ngi man ne nijaay ci doom ak baay ak bu bi doonee baay cabinet bi nijaay lay doon. d' accord ah. sama question ba léegi ñëw nga ci yàq. Mhm. résultat ngeen ci <laughs> bi. résultat bi ñu ciy xaar euh, ñu ngi koy yaakaar lool ndax itam li ñu ngi koy yaakaar moom mooy moom xaaruñ ci dara ndax itam. Euh, bërki démb rek daf ñuy daf ñu dajale ci bu ne communiqué nu war a communiqué te loolu doo ko dafa andil ay communicants ñoo xam ne ni ci loolu la ñuy yëngu ay journalistes andi ay juristes yoo xam ne dañoo def expérience bu yaatu boo xam te ni yi nekk Sénégal yëpp koo wax xam na la def na noonu ñoom expérience moom la ñuy booleel nga xam te ñun ñun fi mu toll nii daf ñuy jàngal nan la ñu war a waxe ak na la war a doxee ak nan la war a loolu la ñu jëkk defal maanaam moom dañuy defal formation sax xam nga moom dèjà dafa waroon ñëw di ñuy xeex mu ji. te aussi manam, dañuy wan ni ni ni ñuy manam, maanaam yar ya-, yar gi wara am sun diggante ak ak ak ak ak waxal même ñi ñuy jàkkaarloo ñun war a waxee ak ñoom waaye eh, waaye fi ñu jëm di def ay plan d'action fi ñu jëm nag moom mooy jamono ñu toll ni wax na nag ñun war a waxal parce que li tax loolu moom mooy eh, ba ci bi bëgg eh, ci koor gi ni bi bëgg a ni ñu bëgg def ben benn ci benn marche ñu gis ni dafa xat ak avant élection ak yu mel noonu. pacifique. ñu bin bin defee pour pour bind sous préfet pour def marche ak yu non. noonu ci la ci la gendarmerie wax ni dafa xat daf ñoo wax ni nan def nii nan def courrier euh, bu ñu defee courrier yóbbu ko ministre de l' intérieur mu yëg ñu ndax booy def dara da nga yëglu ci ko Modou Fall li nga mm-hmm. développé yëpp bu ñu ko tënkee rek. mooy mm-hmm. jóge ngeen ci xeexu mbedd. Mm-hmm. ci xeexu bureau. waaw jërëjëf. waaye waaye waaye waaye génn ci xeexu mbedd nag. <laughs> waaw. jërëjëf madame Ndour euh, ginnaaw bi ñu la dalal bu baax a baax. Euh, man fekk na yàlla may na maam chance maanaam couvrir sa sa événement yi foofu métti woon ah, ah, loolu maa ngi koy fàttaliku kon tey suñu nee am nga fa résultat a alhamdulilah ah dana wax loolu askan wi soxla moo tax ñu woon na foofu noonu nga ànd ko ak askan wi kër Moussa fii fekk fi ay différents euh, types de problème euh, tey ci problème bu Filifini actuellement foofu la ñu entamé Filifini dégg nga léegi su ma naataangoo di ko waxee euh, C55R bi boobu problème la keroog dalal nañ fii koo xam ne si euh, ci euh, cabinet maire la bokk yore wàllu domanial bi wax ci wàllu suuf si su mujj mu ne wax ne 400 hectares te ñun am na beneen document bu ñu gis ñuy wax 900 hectares mu bari ay wax yu ci bari yoo xam ne si dafa wuute yow comme yaa ngi sëgg ci kayit bi comme ni ko waxee du kër moom yaa ngi ci toujours yaa ngi ci dox tey loo mën wax ci ci problème mu fii di loo xam ne lu leer nañ loo xam ne kenn du ko dindi. dafa nekk entreprise bu xaw a doy waar. waaw ndax doy waar weesuwul. ku ne xam na balaa ñu njëkk a tàmbalee ci li ñuy laam-laamee ci quatre cent wala quatre cent quatre-vingt-trois hectares déjà ay dëkk la. waaw ci benn famille. benn nit. ci ñoo xam ne da ngeen fay fekk seen i ay maamaati maam dëkk fa. xam nañ tamit ci ñun baykat yi ba te ba léegi ñii ñu toll nii. farataaluñu këyit ci seen suuf. ñoom dañuy xëy di bay. di dundee mm-hmm. xalaatuñu sécurité te amoon nay jamono yi aussi nax leen dafa yomboon lool mm-hmm. dañuy ñëw di approché suñu mag ñi mm-hmm. jaay leen ngor te loolu rek lañ am ba jamono yàlla ji jaay leen aussi ni que jox nañ leen seen wàccuwaay ñu yaatal leen te fekk na ay caay-caay lañ ndax ñu leen di caay-caay ci suuf ndax caay-caay weesuwul nga ñëw nax nit ki ba nangu suufam signé loo ko lu mu xamul wala natt loo xam ne ni da koy nax naan ko damay xool fii lu may def pour def fii tool wala lu may def pour def ci nangam ba mën a am say coordonnées géographiques. Ah. làkkatu ci suuf dem di wuti ci say kayit te yow ka nga xam ne moom moom toolam yëgul de xew ndax fa nga jotee moom jotewu fa. Ah. mooy bureau yi nga xam ne nii yow moom nga jotee moom jotewu ah. xëy na sa njàng fa mu toll moom bosam tollu fa. te aussi moyen ñoom yi ñu amoon pour di jël des experts ñoom amuñ ko woon. ñu toog rek toll ci dañuy bay dundee. continuer di toppatoo seeni suuf.

Le département madame Thiès village déjà trois villages quatre quartiers. trois villages village village déjà ya ya euh, quartier Ndoyen 1 Ndoyen 2 hmm. Ndoyen Dior. Ndoyen parce que Ndoyen est poussé hmm. une hmm. partie de Ndoyen. donc trois communes da nga

tel et tel et tel conseil délibéré nañ ci 483 hectares mhm. Fil du la génneel aussi un titre d'état. Bon, boo xam état mhm. moom 483 hectares yi mhm. ba pare teg ci mu nekk loo xam ne ko affecté ndax pour nga am titre ñaari ñaar moo mën a nekk nga am sa délibération régulariser, ba am sa bail am sa titre foncier wala état titré on jox la fa bail de régulariser ba am sa titre foncier ñaar yooyu yëpp doo ko fa gis kon yëfi tappale la. alors lan moo waral nga jàpp ne di yëpp yëfu tak tappale la te population bi seen xel dalul ba tey ci dëkk bi bi nga xam ne dëkkee nañ ko ci suuf soosu. waaw seen xel du mën a dal. Mm-hmm. ndax tey dañu dëkkoon ci euh, ba dëkk boo xam ne ni kumba mu am ndey kumba mu amul ndey daf fi bëri doole. Mm-hmm. ñoo am yaakaar nag ci régime bu bees bi ne loolu dina fi dem. Mm-hmm. loolu mooy sa mission yow. ñu rafet ci njort. maintenant gis nga euh, maanaam population bi li tax seen xel tey mën a dal. ki

ndax di ñu dignité weesuwul mm-hmm. kilifa bu ne di borom njaboot da xëy di daan sa doole mm-hmm. pour kër goo dugal sa njaboot mm-hmm. di xëy di wuti ci di dem ci tool yi di bay ngir mën a am tey loo suturloo ak loo yoree sa njaboot mais bu buñ la xañee loolu lépp lan moo fa desati desetoo daal ok sànq dégg nañu sëñ Modou mu wax ni euh, am am ngeen ñoom amoon nañu avocat bu ñu jëloon waroon na ne kayit boobu noonu bi toogee may ko juróom benn weer génnewul kayit boobu maintenant yow ak sa cabinet léegi comme ñee génnewuñ kii boobu léegi léegi lan lan nga war a def pour loolu liggéey bi avant xeex bi avancé parce que yàgg nañ xeex ci mbedd yi yàgg nañ ay ndoxu ñaxtu fu ne dugg nañ fa léegi maintenant ñëw nañ ci cabinet bi sànq wax nañ ñi ngi am yaakaar yaakaar boobu fan nga mën teg sa tànk teg sa loxo ni kat fii naa la fa yóbbu yow euh, yaakaar bi mooy dinañ leen yóbbu ba ca cappaandaw bi mooy fësal dëkk gi mhm. ba pare nag xaar ci tamit état bi parce que

on waa tout waroon def tout ce qui est procédure administrative pour mën a delloowaat borom suuf yi seen ay suuf delloo leen seen i àq ak yelleef. est-ce que dina yomb parce que maa ak ñoom Faye Ndiaye ñoom Diop yi ak waa Kër Moussa yi am nañ benn doxu ñaxtu boo xam ne dem ci àll bi naan gay ñaaw. ñoo xam ne wax na nga gay ñaaw te yoo xam ne am nañu wax ni fii nii fii a jaay foofu est-ce que li dina yombaat combat boobu mu toll nii. waaw euh, loo gis ci àdduna bi buñ nee xeex rek. Mhm. xeex yomb. Mhm. maanaam ci songoto ñaari nit yuy xeex rek di léewtoo mhm. du yomb ndax gaañante day am métti métti dina am ba pare balaa ñoo mën a am buntu. guerre bi bi gën a mag itam ni ñu naan ci autour d'une table te balaa ñoo toog ci table mooy euh, jàmbarloo am na ay bakkan rot na ci.

dafa métti woon en plus forte raison quand on parle de plus de 900 hectares on te dit 900 on te parle de plus de 900 hectares on te parle de plus de quatre quartiers trois villages mm-hmm. on te parle de deux départements mm-hmm. benn du yomb ndax looy liggéey da nga koy liggéey ci département Rufisque mm-hmm. leneen yi nga liggéey ko ci département Thiès donc amul lu ciy sedd wala lu ci yomb mais xëy na ñoom ña fa toog ba di ci liggéey ba di am lam cay am nañ jàpp ne lu mu leen jaral ñun jaral nañu lu ko ba tey jii képp kuy borom tool nga mën a delluwaat ci sa dignité delluwaat ci say àq sa yelleef. très bien ñu bàyyi nga naan ndox tuuti euh, dem ko ci euh, ci. Euh, war bi mm-hmm. ak waa sanc euh, séeréer bi jàpp tàggoo mm-hmm. xinin ak kinif yëpp am ah. mm-hmm. euh, seen problème soosu comme ni ñu ko waxee ay euh, terrain yoo xam dafa dafay nekkoon ba pare ñu xëy daal ne dañu dañuy dindi alignement yi bu dem ci beneen anamu façon defaree suuf pourtant wax nga ne am na ci benn gain de cause bu commencé am di ngeen ñëwee ci cabinet bi ak yooyu mais tey jii nag fi mu toll nii fan la mbir mi toll dëgg dëgg dëgg dëgg ak fan ngeen taxawee ci mbir mi waaw bu ma delluwaatee foofu dafa am fu ma xam foo xamee bi ma ñëwee bi egg foofu dañu taxawoon ñu dugg ci beneen débat maanaam euh, dañu njëkkee ci doxe affaire bi ci diplomate diplomatie diplomatie lañ ko njëkkee commencé mhm. waaw léegi su ko defee bi ñu demee ci chef de village bi ñu fa jógee dañu def délégation ànd ak chef de village directement dem ci maire mhm. ñu toog waxtaan ak moom mhm. bu ñu waxtaanee ak moom li mu ñu wax mu tey xelu ñu bëri parce que bi ñu delloo dañu woo dikk bi yëpp ñu def réunion bi ñu jógee foofu nag ñu bind maire ñu bind ko lettre ñu jege foofu bind sous-préfet lettre amuñu ay réponses yoo xamante ni bii mën nañu convaincre su ko defee euh, ñu continuer di amal suñu ndaje ak euh, réunion yi bépp kilifa boo xamante ni bii xam nañ ko ñuy def déplacement di fa dem ba ñu wutoon sax avocat pour taxawal ñu ci mbir mi boobu gisaguñu cabinet cabinet madame Ndour bi ñu demee ba mu tee nag ñu ne taal bu nag moom mën nañ ko uppee côté bu nekk ñu ci la ñu dog a defee réunion général léegi ñu. programme manifestation ñu def manifestation boobu manifestation bu mag léegi bi ñu fi jógee nag bépp machine boo xamante ni bi dafay ñëw commencé liggéey ci kii bi euh, jeunesse bi yëpp dañuy mobiliser wu ñu def engagement ñoom ñu dem arrêté ko ba jotoon na xaw am ay jàppante sax bi ñu tëjoon machine bi ba waa Dascos bu Mbour fekk ñu fa su ko defee ci la ñu continuer combat yi dem nañu wuyu ko Mbour ñu xamal ko ne lii maire daa jékki-jékki ñëw di ko defar te dégg wuñ ci mais ci ginnaaw loolu yëpp Euh, bu ñu toogee ba ñu xam ne lii mënul continuer lu dul ñu waxtaan ak askan bi léegi su ko defee ñu teg lépp ci taabal bi woote ci waxtaan mu wax ñu ne léegi ku ci nekk li nga amoon ci lotissement bi di nga ko amaat ñu ne léegi wax boobu rek du ñu doy ndax euh, kàddu boo xamante ni bi amul benn lu koy liyee amul protocole verbal noonu la rek kenn bindu ko fenn ñu ne ñu mënuñu demee ci noonu dañuy def benn protocole d'accord ñu bind ko xaatim ko ñu xam ne ëllëg bi ñëwee ñu xam ne yow yaa ñu waxoon lii. loolu am na waaw loolu am na. am na ba ko. waaw ba xaatim nañ ko parce que ci loolu lañ ñu boole ak madame Ndour nii euh, euh, ñu jaaral ko ci Ablaye Diouf coordonnateur bi mu dëkk euh, kinif fële xëy waaw léegi su ko defee bu ñu ko woowee mu ñëw ñu bokk waxtaan. comme bu mu expliqué léegi rek ak waa Kër Moussa noonu la demee ak ñun engagement carrément la jël mu wax ne soxlawu ma fay soxlawu ma dara soxlawu ma parcelle ma dara dama taxaw pour jàppale askan bi waxul dama taxaw pour jàppale collectif bi mais dafa taxaw pour jàppale askan bi ndax collectif bi intérêt askan bi moom moo tax sax moom mu juddu waaw su ko defee ci bir loolu nag madame Ndour ñëw ñu ànd ak programme bi waxtaan teg suñu protocole ñu dem ànd ci ak moom waxtaan mais signal ñu Euh, signal ñu ko waaw. ñu ngi bureau de Cheikh Omar. Mm-hmm. protocole boobu nga tudd diggante yéen collectif bi ak waa. Euh, cabinet bi lan moo ci nekk dégg-dégg parce que li waral question bi mooy li waral coow yi ci suuf si mooy alignement yi ñu doon def. Mm-hmm. ba gis ni lii jaadootul. mu des nañ ko defaraat ñu tuddee ko restructuration. Mm-hmm. yéen ngeen ne bu ñu naree def situation bi dañ génnee hôpital bi dañ génnee terrain de football bi dañ génnee nangam. Hmm. te suuf si du tawee ko du yokk. Hmm. kon bu ñu ne ku ci nekk la nga amoon ngay amaat nes bi ngay déggee. Hmm. yéen lan ngeen dëppoo ak cabinet bi ba mu war a tax ngeen nangu li xam ne mooy situation bi. waaw xam nga dañu ñëw ñu andi lu ñu ci table mi ne lotissement administratif la. waay euh, kayit bi délibération bi mu nekkoon daf si jóge. maanaam euh, ak te maire bi mu nekkoon daf ci jóge bu ñu defaree ba pare sa kayit bi réservoir bu domaine bu cees nga koy jëlee mhm. maanaam kayit bi nekk na yéeg na beneen dimension mhm. ci li ñu li ñu wax mhm. ñu ne voilà ñun d'accord nañu ñun bañu ñu defaraat mais askan bi lan moo ciy seen intérêt lan la ñuy amaat parce que koo ci gis am na fa parcelle am na fa terre yi ñi am nañ fa tool léegi defaraat boobu bu amee léegi askan bi nan la ñuy def lan la ñuy gis seen bopp wala lan ngay teg ci seen loxo

moom moo koy gën a métti vraiment dafa jëm ci mm-hmm. euh, madame Ndour euh, madame yow li euh, ma dégg tout à l'heure monsieur Fall wax ko dem ngeen rencontré ak monsieur le maire am ngeen benn partenariat bu travail boo xam ne ko am ngeen ko nee ngeen ko jiitul ñu topp sa gannaaw ak ñun cabinet ak ñun collectif yi ñu ko seexal ci cadre cadre bi ñuy tudd nii mooy kinif diggante taggo sañ séeréer yooyu ñooñu actuellement nii lan ngeen ci dox ba est-ce que am ngeen ci génn cause wala image jigéen ngeen ko

tay waro am euh, tol dagg ko te amoo autorisation de lotir ce n'est même pas une restructuration mm-hmm. ni aliment yu rek restructuration beaucoup, mm-hmm. restructuration moins. village bi nga xamné soxuna ba paré mm-hmm. nit ñi dëkk nañ fa ñu ñëw ñu né ah amna na yo xamné xam ne dafa sew euh, dëkk bi en même temps anarchie ku nekk ñu la neex nga nga nga dëkkee kër gi amul këyit lépp dañoo dëkk rek ay acte la ñu am de vente ak des choses comme ça concernant ça

pour waxtaan ak ñoom pour xamal leen lan mooy njëriñu autorisation de lotir autorisation de lotir mm-hmm. tey. Euh, sécurité la maa ngi ci olof olof autorisation de loolu ci olof. autorisation de lotir boobu mooy tur noonu ci olof. Hmm. sama maam bi de ci kër ga. Ah, te te te xamul non ñëw ci man bi <laughs> dafa ñëw ci biir ko <laughs> ñi nga xam ne ay maam lañu ay séeréer lañu ñu baatu tubaab boobu noonu. Hmm. pour nga dimbale ñu mën a xam li ngay wax la loolu bu sama xale mën a leeral maamam pour mën a xam hmm. kii bu lan la. mooy ndigal bi ngay sàkku si pour. ok pour mu jox a jaay. <laughs> voilà autorisation ba tey euh, autorisation de lotir mooy yow mi nga xam ne da am sa tool. nga dem ci nguur. Mhm. ne ko jox ma autorisation pour ma dagg tool bi. mu jox la ndigal. Mm-hmm. ndigal waaw mhm. ma dagg tool bi def ko ay parcelles. Mhm. léegi nag parcelles yooyu ma koy def. dañ li ciy génne ci biir parcelles yi. Euh, fu amul euh, école ñu dafa la école. fu amul juma ñu defal la juma. Mhm. fu amul hôpital ñu ne dafay am hôpital. Mhm. Euh, case santé mhm. yooyu yu yu ni mel. donc loolu urbanisme moo koy def. Ah, mais mais du mairie. du mairie urbanisme moo koy def. te ministre de l' urbanisme mooy génnee arrêté. bu génnee arrêté bu ne jox naa la ci diggal léegi directeur urbanisme dafay jël ndigal loolu. def ko tampon ci biir plan bi. bind ci numéro bi ak date bi ba pare signé ko. la. nga doog a mën a dem implanter mais boo paree. tey euh, ndigal bi day jaaree demande bi day jaaree ci maire. ci waaw parce que domaine national. Mhm. kenn mënul am sañ-sañ xëy dem wuti ci këyit. wala dox ci wala wax te demoo maire bindal la këyit loolu mooy pouvoiru tey. maire mhm. euh, bi daal. voilà mhm. mënoo ko contourner. tey même boo yoroon sa tool te jotul am délibération amul dara. mënoo xëy ne damay dem wuti bàyyi. te jaaroo ci maire allah kulli alifa ngay jaar. donc muy lotissement administratif yi tey. Euh, bu amé autorisation de lotir dafa nek lo xam ni maire mom moy signer demande bi déposer ko urbanisme ñu autoriser ko ko tey loolu li muy li li indi moy sécurité lay indi. léegi kaaraange ci kii bi bala ma sécurité moom la bëgg a mm-hmm. mais ci kaa waa ni ba léegi ci 30 secondes rek. Mm-hmm. ñoom ci xeex bi fiñ ñu tay tey mm-hmm. est ce que am nañ gain de cause wala déet. wa fiñ ñu toll bu gain de cause am nañ ko à 80 80 ndax lan. Euh, biñu exé tay dañu nek luñ ci munti parce que nous automatiquement dama maire mhm. parce que dafa nek buntu ci dëkk ah. buntu ci dëkk mhm. ci commune ci mairie ngay jaar mhm. da ci village ci chef de village ngay jaar da ngay quartier ci délégué de quartier ngay jaar biñ ci man mi autorisation de man ku ko ne ko askan bi lii ma comme loolu la teunk tënk ci protocole d'accord mhm. protocole d'accord accord bi dafa fekk collectif bi def ben assemblée générale ak population mhm. waxtaan ceeg ñoom ak présence collectif bi bañu d'accord d' def mhm. un protocole d'accord ñom ñu ñëw and ak cabinet bi dem ba ci bureau maire ñu bolo ñun ñëpp signer protocole d'accord ci biir protocole d' accord bi maire ne leen ci dagg bu njëkk ba ku ci nekk bu dee fukki parcelle la boo amoon juróom-ñaari juróom-ñaari ngay amaat ñett yi concerné wu la bu fekkee nag ki nga xam ne dafa jotoon a jaay li mhm. nga jaay ki nga jaay mhm. ñu jël kayitam ñëw déposé ko mairie mhm. yow mi borom tool bi li nga am photocopier say kayit ak sa photocopie carte d'identité nga déposé ko mairie ñu liggéeyee ba pare ñu delloowaat la nombre parcelles yooyu nga am dara du ci manqué dara du te bu ñu paree aussi infrastructure yi nga xam ne dafa war a am ci biir euh, plan bi yépp daf fay nekk ci mooy ñoom li nga xam ne moo doon seen njàqare amuñu seen ceer

dinañ la génneel quinze pour cent boo xam ne ay tali la. Mhm. génneel la 15 pour cent boo xam ne ni mooy jumaa yeeg école yeeg jàkka yeeg. ainsi de suite. Mhm. li ci des nag ñu doog ko séddale mu nekk ay pacc ci parcelle. Mhm. man tey ci réunion bi nga xam ne moom laa njëkk def ak ñoom. nee naa leen tey bu fekkee ne ku ci nekk la maire wax ne leen ku ne loolu ngay amaat. bu ñu paree maire du dese dara. maire du am dara est-ce que est-ce que maire da ci am dara. du am dara. non est-ce que da ci am dara. si maire war na ci am dara. non attention ñoom waaye maire yi ñoom amuñu dara ci ci ci ñi dans les non dans les normes buñu ñu paree. waaw ah. ñoom du ñu am dara ndax lu tax. waaw ah. parcelles day wàññeeku. day wàññi ah d'accord. té engagement moy borom tool bu ne am lu mu war am. Mhm. mais bu loolu passé dafa am benn modèle bo xamné ni mom lañuy défé Sénégal. Ah. ci lo xamné rek comme ñun lo essayé benn ñun jall na. Mhm. mu continuer mais duñu lu bind fenn ci yoon. tey bu ñu paree tout ce service technique boo xam ne dox nga wax nga ci lotissement bi mhm. dañuy jël ay parcelle jox la mooy quota boo xam ne moom la ñu war a jox service technique bu nekk mais tey par rapport ak li nga xam ne mooy contentieux ci mhm. les différents lotissements administratifs mhm. bu ñu paree daanaka ku ci nekk da nga am lu ñu la comp ñu mën la koo jox. mais du loo xam ne quota boo xam ne dañ koy respecté. Mhm. parce que li ngeen di waaw def nañ fa ay lotissement administratif yoo xam ne autorisé la. Mhm. mu nekkoon lu metti ñu xeex ko ba mu egg ba tey képp kuy population la nga ca amoon pour benn parcelle bu mhm. ku ci nekk am nga la nga am. mais maire yi daanaka la mu ca war a am dañ koy wañ tollul nen. d'accord waaw. d'accord euh, bu ñu dégloo sa sa wax bu baax mooy nit ñi ñoom ñëpp ci principe bi daal d'accord nañ ñu war nañu mën a des restructurations nga xam ne dinañu daggaat terrain yi wutaat ay mbedd yu jaar yoon wut ay espace public et cetera nga wax ci sa biir wax ni dinañu assurer ñi nga xam ñoom moom suuf si ku ci nekk boo ci amoon sa 15 parcelles ñu delloo la say 15 parcelles waaye dimension terrain bi dana dana wàññeeku ji loolu bokk na ci li nga xam population mën nañ ko mën nañ ko xaar ci wax aussi par rapport rémunération bi cabinet est-ce que lañ leen nar a joxe ji bu fekkee ne dañu am ci suuf soosu lay jege wala déet parce que yaa ngi wax sànq ne fa yeggoo leen te wax nga sànq ci cabinet yi nga xam ne wala structure yi nga xam ne intervenir nañu par rapport à situation bi dinañu leen jox ay parcelles ñaari wax yooyu rek laa bëggoon nga leeral la moom mu mu leer benn yoon. waaw pour commencer ba léegi tuddul restructuration. lotissement waaw noonu lañ ko tuddee de. Hmm. mais restructuration maanaam <laughs> hmm. dafa nekk lu war. Hmm. ci village yi. manam dëkkuwaay yi pour dëkkuwaay yi am këyit régularisation te yaatal yoon mm. parce que déjà li ma njëkk a constaté mooy bi may ñëw fi rek mm. yoon bi ñaari auto mënu ñoo jaar wa ñun né problème bobu la ñu voilà donc lolu <laughs> restructuration war na fi am yoon te moy dëgg sax mm-hmm. maintenant euh, bu lolu passé ñoom mm-hmm. propriétaire champ bu né fi nga am tor lañ lay jox say parcelle ok ñu la fay jox say parcelle tey dañu ne parcelle bi gën a tuuti 180 mètres carrés la mhm. mais am na parcelle yu ëpp 180 mètres carrés kon kii tey mun naa am 180 tombé ci parcelle yoo xam ne 200 mètres carrés la wala 300 mètres carrés parce que lotissement bi yëpp parcelles yi mënuñoo tolloo mënuñu yem mhm. dina ci am yoo xam ne ni ëpp na ko mhm. ku ko ci tombé itam ni nga ko am mais du lu ñuy tànn ni kii dafay jël li kii jël non ay bloc lay doon pour permettre aussi borom tool bi nga xam ne ni da daan bay te bëggul euh, dagg toolam continuer ñagaat nombre de parcelles comme les mm-hmm. di bay suis en ay këyitam mm-hmm. maanaam mooy sécurité bi mm-hmm. donc bu vous c'est, bu on euh, service technique bu nek, da ci am quand on parle de service technique mooy euh, cadastre domaine urbanisme mairie sous-préfecture promoteur ainsi de suite maintenant le cabinet n'en fait pas partie Le cabinet dans ce cas du taxaw taxawaayu promoteur non parce que tey ñun hmm. pour euh, faciliter sax liggéey bi hmm. dañoo indi promoteur bi nga xam ne nii mooy liggéey hmm. euh, ñoom xam nañ ci daal yóbbu ko ci maire mu def protocole d' accord ak le maire directement mbaa promoteur bi du jëlaale seen wàll après bu ngeen àggee rek ngeen seen ci biir protocole bi doo fa gis fenn foo xam ne ni madame Ndour dina fa exister te tey le pourquoi ma mën ci dugal promoteur boobu kooku dañu yàgg tey dina ma mën a liggéeyal li ma fa bëgg te li mu fay liggéeyal luñ ko munti fay du ko mate parce que tey boo demee ci terrain boobu quatre bulldozer dafa dugal. Euh, ba ban terrain. bu xinin bi bu xinin bi. quatre bulldozer dafa dugal di liggéey. Hmm. danaka buñu né nee euh, liggéey bi 80% ba 90% cent na. ba ñom ña ngay borne. Hmm. donc xam nga lool danaka liggéey bi pare na. Hmm. te boo xoolee D9 la mu war consommer ci ki nga xamné moy mooy ki ñuy déglu té xam luy machine. euh danaka amul promoteur yuy nekk fii ci biir gox bi di liggéey Kër Moussa. di jël yooyu moyen di ko def ci lotissement autorisé. pour ngeen mën a fay. très bien alors document yi génnaat nga baal ma ajuma parce que léegi délibération la ñu doon am ah mooy acte administratif yi ñu doon am. Hmm. ban document mooy mooy génnaat ndax bàyyi lay nekk eh, wala ban ban ban poids juridique la nar a am. Eh, document yi nag mooy ëpp solo. ca hmm. lañ daan am ndax document bi day nekk notification d' attribution de parcelle. Hmm. boo xam ne tey receveur moo koy signé. le maire contre signé ko.

les engagements sont na wax ne maire kat le def lu recevoir receveur signé maire contre signé mais ce sont des notifications d'attribution de parcelles uh-huh. mooy wane ne que yow domaine reconnaître ce souffle, uh-huh. sa suuf mi ngi biir cadastre or urbanisme mi domaine uh-huh. maintenant lii continue continuer la procédure pour que borom tol bu nekk mën am contrat de bail moi mooy li ñu titre TF numéro tel et tel loolu mooy finalité bi. mooy finalité euh, nga ma baal la parce que ñu ñu accélère ah, tuuti. parce que damay ragal parce que problème yi muy soulevé nii mhm. souvent mën na dem ba sotti na mu desaat yeneen problème derrière. Mhm. tey ji bu conflit amoon tey ji postérieurement ñaanuñu ko yàlla mais réeroo mën na am bu demee mbir yi jeexu ci nekk ci sa terrain foofu bu problème amoon entre par exemple man maa ngi am sama tool bu ndaw ma yaakaar ko ci ma gis ni position géographique bu mu bu mu nekkee baax na peut-être ñu ñu defaraat. malheureusement jàkk war fa génn wala juma wala yu mel mu wóor ma ni fa ma soxla woon foofu mënu mënu ma ko am ci naka ngeen di prévoir pour mën a defaraat yi nga xam ne peut-être dina juri ji réeroo. waaw loolu engagement maire la. Hmm. te li mu waxoon wax ko askan bi lu leer la. mooy ne képp koo xam ne da ñëw te ñàkku ci ah. Hmm. Euh, comme am na lelam. waay koo xam ne ñaar ñoo xam ne nii kii bi da leen hmm. euh, espace public yi. mais da leen ku ci nekk la sa doo ko mën a amaat ci sa tool parce que dañ leen wax ku ne sa tool fi mu ne fa ngay am doo ko mën a amaat sa biir tool mais dinañ xool ci biir lotissement bi nombre de parcelles yooyu nan lañ la koy joxee ci biir lotissement bi. Mhm. donc nekkul ne tey espace public dafa la empiété que da ngay perte. déedéet mhm. dinañ la mën a fay feneen mhm. say parcelles mais toujours ci biir. ci biir lotissement bi lay nekk. waaw d' accord merci Moustapha Diouma. Mm. jërëjëf Abdoulaye jërëjëf madame Ndour dañu ñëwaat ci tamit ci beneen toog moo tax te mm. wax ji boo xoolee daanaka lu ci ne lii sax kaw. Mm. moo tax temps de parole di bëri ci yow yi ñuy jégalu pour ñu seetla nag war a comprendre parce que lu bëree bëri ci moom lay déposé waat moo tax. Mm-hmm. Euh, bu ñu ñëwaatee ci euh, sëñ Modou. Mm-hmm. Euh, sëñ Modou yow ci côté عندها في كرموسا آه، خمنا اللي انت خيهو تليفيني آه، بي مي امنا هناك تخيهو ورخ على توتي موي مونستير مواني آه، كان عان باي جيني فوني دونك maa ngi fàttaliku loolu noonu. Euh, coow loolu fan la toll. Hmm. ndax ànd dafa ko Moussa mujj na réussir coow loolu. Hmm. waaye imma ba léegi des ngeen wax ci euh, jërëjëf Adjuma di jaajëfal ñi ñi toog ñi seetaan yëpp waaye di leen jaajëfal yéen ñiy laaj ngir ñu mën a leeral nit ñi la xew. waaw kay jërëjëf euh, loolu bi nu bi xam nga dafa am loo xamante ni suñu delloo tuuti gannaaw def naa madame duur laal na ko ci biir waxam. danoo wax titre foncier est inattaquable titre foncier kenn mënu ko attaqué comme séminaire yi yàlla def ñu ànd ak waaye ndax ma publicité sax waaye ñu jàppale ñu defal ñu ay formation ba nga xam te ni xam ne collectif mën na xeex titre foncier loolu moo sabab collectif bi mën a taxaw dëggal sunu moomeel googu ci sunu sunu alal loolu nag moo ñu jural def naa léegi wax nga léegi ni moine moine fu ne monastère loolu monastère de. Kër Moussa de Kër Moussa yaa ko wax. monastère de Kër Moussa monastère tey ji bu fekkonte ni moo fa jiitu Kër Moussa dañuy wax monastère de leneen waaye du wax monastère de Kër Moussa kon fi la fekk Kër Moussa loolu loo loolu def naa yaa ko définir li may bëgg a avancer ci loolu moom mooy eh, danoo ñëw ñu gis ne ñu ngi ñun depuis eh, dossier boobu muy onze soixante seize di deux cent un hectares boobu moom yàlla daa dogal ba fi may wax ak yow nii képp ku ci mosoon a occupé benn benn mètre carré yaa ko yor ba léegi ca maam ba léegi yaa ko yor euh, loolu nag bi mu amee comme ñun ñoo ko occupé ñun ñi ngi bay ñi ngi sàmm ñi ngi kii euh, la loolu mënuñu bu ñu dikkee dikkee ñun juridiquement la ñuy jéem a moom la ñuy mën a attaqué moo tax bi ñu dikkee ñu jëkk a saisir loolu tamit ñu ngi koy ñu ngi koy ñu ngi koy jéebaane tamit di wax ni. ñun ñi nga xam ne dañoo néew doole xaw ma secteur informal lan xaw ma lu mu doon waaye ñun ñu néew doole ñun ñu amul kàddu ñun bu ñu demee des ko su duñ fa mus am kàddu ñun amuñu kàddu fenn